salaamaaleykum mbokk yi damay dox ba dajeeg taalibe Seydi El Hadji Malick yi gars yi lan ngeen wax Alaaji Malick jàngu bërëy na lay lay jëday riir si kër la wooloo donnu na mbal Cheikhu Tijaan awaaw Mawda Malick jàngu bërëy na lay lay jëday riir si kër la wooloo wa Seexu Tijaan ay Mawdo si Mawdo Maalik jàngu bërëy na lay lay jëdëre Mawdo si kër la wóoloo danu na ma Seexu Tijaan awaaw Mawdo Maalik jàngu bërëy na lay lay jëdëre mam Mawdo si kër la wóoloo danu na ma Seexu Tijaan ay waay mam Mawdo mam Mawdo ñoo la bëgg ku la bëgg nga bëgg ko si kar la woolo doonu na ma Seexu Tijaan awaay ah, maam Maodo noo la bëgg awaay ah, ku la bëgg nga bëgg ko si kar la woolo doonu na ma Seexu Tijaan ay waay sabaya toog roqaya toog maanaam Anta Yaasin Jaan ñi leefe daal ñaqal ma Maodo ba jak saa allahu akbar allahu akbar mbokk yi mu ngi noonu taalibe Sidi Hadj Malick yaa ngi nii li ci mam moo la ëpp na million barke alxuraan yàlla ngeen am téeméeri at ci barke Sidi Hadj Malick ñaa du sagal ñu bëgg barke alxuraan boo ne weex na ñu ni tàll boo nee ñuul ñu ni kuk boo nee weex na ñuul na ñu ni d'accord nañu Sidi yal na yàlla guddal fanu Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalifa général ak njabootu Sidi Hadj Malick gépp ko kuy njabootu Sidi Hadj Malick ngi lay ñaan boo julleetee ba pare na nga ñaanal njabootu Sidi Hadj Malick yàlla defal leen ndam gars yi maa ngi leen di ñaanal yàlla bu leen kët bëri ci Sidi Hadj Malick jërë ngeen jëf sama gars yi kontaan naa ci baax nga El Hadj gi yàlla na ci yeneen 4-4 topp ndax buñ la ko defalee defal nañ ko xadara kër maam Cheikhul Hadj Malick gépp te bi ci desit mooy mérito nga te lii nga oto bii nga am ndigal la boo xamante ni dafa bàyyi ko ci xalifa général des Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour moo ko wàcc ci sa kaw moo tax bi mu ñëwee ba ñëpp xam ne jox na El Hadj Meng oto bi ñëpp kontaan si gi jërëjëf Meng yàlla na yàlla guddal sa fan jërëjëf Sidi Hadj Malick <laughs> jërëjëf Mame Maodo